ngeen déglu wan tey jii nu laa biire gaayu baax yinaa ay walaf baaxul te rëy day sewal gu baax ngeen déglu wan tey nu laa biire gaayu baax yinaa ay walaf baaxul te rëy day sewal gu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen nemeeku di ñaanal uh, sunu kilifa sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak te ànd ak wér ba mën a eggale mbooleem naa li nga xam ne mu ngi koy naal maamam ju tedd ja euh, tey nag niñ ko baaxoo defee ci fii ci alxadimiya di fi amee euh, kon jataay waxtaan bii euh, ñu koy wax xame ci wolof xame ci wolof nag li ko tax jóg mooy maam liggéeyal ci wolof waaye wane ne wolof làkku xam-xam la wane ne euh, maam liñ mën ci làkk yépp am moo xam français la moo xam anglais wala làkk wu mu rek mën nañ koo def ci wolof mel ni nit mën naa am xam-xam te du jar muy dem sax ci euh, maam jàngu tubaab bi mu mel nag tey jii dañoo dalal benn boroom xam-xam boo xam nii moom day firndeel lool muy euh, sëñ Alaaji Caam ñu gën koo xam ci Caam PC muy boroom xam-xam xam-xamam ci wàllu euh, courant waaw dañ mën koo wax euh, rentañ ci wolof waaye di boroom xam-xamit ci maam xam-xamu nosekaay te muy informatique kon moom la ñu dalal dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo bu ko defee ah, nu mën a jublu kon ci waxtaan wi bisimilah. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah ah, ñu leen di jaar bu baax di rafetlu jataay bi di am mbégte bu wax si dalal bi nga xam ne moom ngeen ma dalal si waxtaan bu am solo bi nga xam na moom lañuy ñuy tàmbali di ñaan si kàttanu yàlla rek lépp luñ si wax mu nekk njëriñ goo xam ne képp ku si war a jëriñu rek jëriñu si. Eh, di ñaanal suñu sëriñ eh, sëriñ Muntaxa yàlla suñu borom yàggal ko fi eh, defal ko képp koo xam ne ngay jullit nekk fii si Sénégal ak suñu xalifa yi yëpp yàlla suñu borom gën leen fa yàggal yàlla su borom defal ñu ay ngëneel lu kawe di bu baax si jataay bi di ñaan si kàttu yàlla yàlla suñu ñu jàmm bisimilah. jërëjëf suñu El kon tey dañoo fas ne waxtaanee xam-xamu yasara. wala muy énergie te ku wax loolu nag li nga wax courant courant nu man ko tuddee ci wolof euh, renteñ kon muy xam-xam bu ne li jëkk mooy nga xam kat waaw maanaam lii mooy lan xam-xam bi mooy lan waaw bu ñu nee courant kon war na noo mën a xam lan mooy courant kon boo nu doon waa tojal amaam baadu courant wax ñu lan la nan nan lay demee waaw courant dafa nekk loo xam ne lu am solo la euh, mu nekk loo xam ne mënta ñàkk si dund doomu aadama euh, dafa doon loo xam ne tamit si jamono ji ñu toll nii lépp li ñuy jëfandikoo lu nekk euh, su si courant amul surtout matériel électronique yi nga xam ne moo am muy laptop yi ak yeneen ak yeneen ak frigo yeeg yëpp lépp lu koy doxal courant moo koy doxal kon courant dafa nekk loo xam ne lu am solo la xeetu courant yi nag dafa bëri ay façon courant mën koo amee nu ne bu euh, si njëkk bi sax euh, jamono yu njëkk yi euh, ñi nga xam ne ñoo doon gëstu si wàllu courant ñi ngi ko doon amee si beneen façon mooy mel ni comme nga ne barrage mooy foo xam ne ndox ma da nga fay dajale ay ndox yu bëri hmm. su ko defee ndox moomu dafay am si benn wet gu muy jaar ngoo xam ne su fay jaar dafay jaar ak doole doole jooju muy jaar nag dafa am lu lu muy puus lu mel ni comme indi mooy dynamo dina boobu aussi tamit la koy composé ay ay bobine moo ko composé léegi foofu su fa jaaree su am na tour boo xam ne su ko defee dafay produit courant courant boobu euh, mi ngi dépendre ci capacité yi nga xam ne moom nga soxla pour mën a am énergie euh, mooy bu si njëkk bi mooy wàllu ndox ndox moom aussi tamit ñi ngi ko doon ñi ngi ko doon defee si soo xoolee bateau yu njëkkee yi yu njëkk yi ak euh, train yi Euh, mosuma gis euh, moteur train waaye euh, jamono yi nga xam dañ ko doon xëmbe ak matt taal parce que matt moom aussi tamit soo xoolee dafa am loo xam ne lu mel ne genre du cin cin boo xam ne dañ ko fay def boo xam ne dafa am ndox hmm. ndox moomu su demee ba tàng ba tàng dafa indi benn vapeur mooy ngelaw loo xam ne dafay ànd ak doole yoo xam ne dafay nekk ci marmite bi ngelaw loolu doole jooju bi nga xam ne da koy am mooy air boobu air boobu dafay am lu muy pousse muy mel comme nga ne piston comme ni oto di doxee. Hmm. Euh, noonu muy forcé di dem mooy yëkkati bi vibriquin bi di ko wàcc di ko yëkkati ko wàcc su ko defee piston bi dafay euh, daw bu baax a baax daw boobu muy daw nag dafay am feneen fi muy jaar euh, jaar si indi yi indi yi jël jël courant bi nga xam ne moom lañ soxla mu togg ko jëm si réglateur bi. jaare noonu bu fekkee loo xam ne dañu koy sauvegarder dafay aaji mu am ay ay batterie yoo xam ne mooy denc fekkee ne courant bi dafay continuer di di alimenter direct moom mën na ko alimenter soit ay machine wala lu mën a nekk noonu lay fonctionner euh, si partie ndox mi mais soo jëlee si côté yi ngelaw li ngelaw li euh, comme ni muy doxee si ndox mi noonu lay doxee si ngelaw li parce que lépp yu euh, lay doon mooy dynamo boo xam ne dafay dafay togg courant togg boobu mu koy togg nag su ko defee ngelaw lu su fa jaaree dafay pousse hélice bi hmm. pousse boobu mu koy pousse nag voltage yi nga xam ne da nga koy soxla soit yaa ngi utiliser euh, douze volts wala nga utiliser 19 euh, wala astafurlah 21. Hmm. wala nga utiliser 36 48 sans dépense ba voltage yi nga xam moom ngay soxla pour mën a doxal li nga xam ne moom ngay utiliser. moo ndox mi soo xoolee ñoo yokk ñoo bokk même voie bi ñuy bi ñuy produire courant hmm. ko tak bi nga xam ne euh, gasoil wala essence moo koy doxal. Hmm. soo xoolee ñun énergie bi ñu xam ne moom lañ yore euh, machine ba koy togg mi ngi Ndakaaru Njaay mooy centrale bu mag bi nga xam ne mooy produire courant euh, nga xam ne voltage yi mi xam ne moom lay produire voltage yooyu mooy jël dem suñu haute yu mag yi. Hmm. suñ demee ba si dëkk dëkk boo xam ne dañoo soxla cent 380 wala soit ñu soxla 220 volts il foofu dañu fay teg benn benn euh, transformateur transformateur boobu mooy jël courant bi xool li nga xam ne moom la dëkk bi soxla mu jox ko waa dëkk bi mooy soit 380 wala soit euh, mu soxla 220 euh, volts parce que kër yi si bëri ay 220 volts moo moo si fonctionne mm-hmm. léegi centrale boobu toujours day fonctionner parce que centrale boobu moteur moo koy doxal moteur boobu buy tourner di di di produit courant moteur boobu aussi tamit gasoil dina ko doxal wala soit essence doxal ko. Hmm. mi mais nag nga yoroon sa groupe comme ni groupe di fonctionner noonu lay fonctionner mais fu ñu wuute mooy euh, voltage bi nga xam ne moom lay produire voltage yooyu du bokk ak yi nga xam ne moom lay comme euh, yenn barrage yi ak yeneen yi nga xam ne mooy produit courant bu toll noonu. Hmm. léegi nag loolu euh, beneen côté bi la. kon kooku pour nga am ko faw nga am gasoil wala soit nga am essence. pour nga mën a produire. fekkee ne si côté euh, ngelaw li la faw nga am ngelaw lu doy pour nga mën a produire courant fekke ne si wàllu ndox mi la ndox moom il faut mu am force bu am doole boo xam ne mooy ñëw pousse euh, euh, kii bi dynamo bi pour dynamo bi mën a tourner pour mën a produire courant. waaye dugguma la sax waaye foofu xanaa tamit dina laaj alal yu bari ngir. ngir mën koo def waaw mi fekken euh, si barrage la aussi tamit soo xoolee ndox mu taw yi nga xam ne dañ koy bàyyi muy yàqu hmm. te ndox moom mën nañ koo jëriñoo si fànn yu bëri hmm. ndox moom am na ni ñu doon fexe ba créer ba tabax nga xam ne dañ koy tabax ba nga xam ne barrage ndox mi day yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc li muy yéeg di wàcc di wàcc loolu lépp am na lu muy pousse loo xam ne su ko poussé loolu dafay produire courant courant boobu dafa am fu muy stocké jumtukaay yi war xëy na euh, suñu xasar na ma lee ne ca ca ca hmm. ah, ca daaru raxmaan hmm. euh, waa maam dinañ ko mën a def ba euh, waa di fa jëlee di fa jëlee courant waaw parce que boobaa di nga si mën a taal làmp mbedd yi mbedd yi nga xam ne dañuy soxla courant hmm. làmp yooyu dina ko mën a fonctionner parce que léegi làmp yi léegi du consommer courant bu bëri bu njëkk ba làmp yi ñu fi doon def làmp yooyu li mu doon produit su courant dafay dafay bëri ay lamp yoo xam ne ay cent watt deux cent xam nga loolu li muy doon produit dafa bëri. Mhm. léegi nag dañoo indiwaat yeneen lamp yoo xam ne moo gën a yomb mooy lamp ledd yi. Mhm. ledd yi li muy consommer su courant du bëri. bu njëkk ba lamp néew yi néew yi xam ne moo fi amoon làmp yi bu njëkk ba ay 60 watt nga doon gis wala 40 watt. Mhm. mais léegi ne boo dugg bu nekk yaa ngi am euh, cinq watt wala 3 watt léegi soo doon jël 40 watt. Hmm? Mm-hmm. nga diviser ko par par par trois ñaata lamp nga ñaata ñaata népp nga mën a taal. waaw ah, bari na de. day bari. Mm-hmm. kon bu njëkk ba liñ doon yàq moo bari. te booba même li mujjee génn sax soo xoolee lamp yooyu moo gën a leer. Mm-hmm. te am si yoo xam ne ay 3 watt la am yoo xam ne ay 4 watt la. daa soxlaa 5 watt léegi léegi soo xoolee yaa ngi am lamp 60 watt boo xam ne moo doon taal sa benn néeg léegi kër gi su amoon lu toll ak 5 chambre chambre bu nekk am 60 watt loolu ñaata la. Hmm. kon kooku mën na taal lu toll juróomi kër wala juróom-benn kër. waa ñu fàttali ne ñu fàttali ne chambre waaw li ci jublu wax mooy. mooy néeg néeg mooy néeg waaw ngir ngir. nga baal ma si baatu nasaraan bi. Euh, loolu tax ñu indi système boobu su ko defee li consommation courant bi nga doon consommer mu mën a wàññeeku bu baax a baax. Hmm. loolu tax soo xooloon Senelec mu doog a léegi làmp yi boo xam ne du weesu nangami wat nga hmm. xam ne soo ko dépassul ay 30 xaw ma je pense am na benn limite boo xam ne làmp boobu waroo koo monter si porte làmp hmm. kon nga xam ne léegi jamono ji dafay gën di euh, euh, day gën di changer. waaw dox xam-xam bi dina doxin boobu muy dox ñun ñun sénégalais yi dañoo am retard bu bu métti boo xam ne man damay toog ba si yàgg damay ne ñun ñun ban ban problème lañ am. Hmm. parce que soo xoolee suñu borom dimbali nañu am nañ naaj parce que man dinaa ñëw si naaj bi pour courant bi nga xam ne mooy moom nooy mën a defee ba jël cour euh, naaj ba ba mun si produit courant. Mm-hmm. am nañ naaj am nañ dex am nañ géej am nañ ngelaw am nañ suuf si tàlli mm-hmm. am nañ ay ay ay jeunes mooy ay xale yoo xam ne toll nañ seen digg doole. Mm-hmm. kon ñun li ñuy dese mooy futteeku liggéey. kon xale yi fi nii ñàkk ñoo bañ am xam-xam. waaye ku leen kan moo lañuy tàggat ba xam-xam boobu nekk ci ñoom loolu mooy problème bi mm-hmm. kon euh, soo jëlee foofu comme fi ma la wax noonu mooy euh, bi ñu duggee ci euh, bateau yi ak train yi mm-hmm. bu njëkk ba noonu la doon fonctionner mat moom ñuy xam su tàngee tàngoor boobu su toggee mii mel na nga jël exemple moo indi la pour mu gën a leer rek mii mel na nga jëloon benn baraada mm-hmm. baraada boo xam ne si nga doon ataaye nga nga nga xel sa ataaya ak sa ndox tëj baraade bi tëj bunt bi boobu sax li si gën a am solo sax euh, bi ñuy def émission bi sax dañu waroon wut baraade ma expliqué la ba nga xam mhm. ni ñu mën a fexe ba produit courant mhm. parce que soo ne baraade bi mën naa see fexe ba courant génn si day kii li mu wax lu mu doon mhm. te fekk na lu tuuti mooy doxul courant bi léegi nag soo xoolee su tàngee dem ba tàng ba tàng baraade bi su demee ba tàng léegi Euh, euh, ngelaw loolu nekk si biir baraada bi su mënta génn baraada bi ni muy def dafay tourner parce que ngelaw liy nekk si biir mooy bëgg a génn mooy mooy tax baraada bi du mel ni luy jug di tourner léegi ngelaw loolu nag dafa am foo xam ne su fa jaaree su fa jaar doolee la fay jaar su fa jaaree nag day pousse hélice bi su ko poussé benn tour wala ñaari tour mu mu mu jël courant courant boobu régulateur bi capté ko yóbbu ko si batterie mu dencal ko. kon émission bi ñuy def nii nit mën na si jàng rapidement pour mën a xam courant ñuy fonctionner mhm. léegi nag soo jegee foofu nga ñëw si si jant bi kon tubaab bi bañ gëstoo ne jant bi euh, li ñuy soxlu lépp mën nañ koo am si biir jant bi jant foo ñu fàttali ne boo demee réewum Allemagne ah ñoom li ñu am ci jant daanaka bëriwul mhm. waaw daanaka waa ma nga ne ay ñetti weer wala ñeenti weer te tey jii waa ñoom ci wàllu maanaam euh, maanaam courant buy jógee ci jant bi ñoom ñoo ci raw ci àdduna. waa parce que ñoom bu ñëwee fii ci Sénégal mhm. at mi yëpp jant bi dafay génn. kon ndax yaakaaru ne nun fii am nañ moom tuuti ak yaafus. léegi damaa xam nag ci. yaafus mooy ñu ko ñu ñu ko mën a jëfee ñi ngi fii. Mhm. ñu ko mën a defar ñi ngi fii problème bi mooy. ni ñuy def ba jot si mooy mooy wax ji hmm. loolu moo indi problème bi yëpp nan lañ mën a fexe ba bañ a am benn complexe mooy bañ a xeeb kenn parce que fekkee ne da nga jël nit ki ne ko soo amul diplôme sàngam liggéey bi amoo droit laal ko wala amoo droit wax si wala amoo droit def nangam. Euh, fekkee na ñoom dañoo dañoo dañoo sukkandiku si wàllu si wàllu diplôme hmm. moo tënk. borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk fii si Afrique ma la Sénégal sax waaye Afrique yëpp la leen tënk mooy diplôme te mbir mi nekkatu si ay diplôme mhm. dañoo dépassé foofu. Mhm. dañoo nekkaat si beneen monde boo xam ne du diplôme mooy tënk xam-xam. Mhm. parce que bëri na si ñoo xam ne sax feek amul diplôme sangam niveau sangam doo fa mën a egg. te loolu aussi tamit dafay tënk ki nga xam ne dafay dafay jaayante ngir bëgg a xam. parce que kooku li tax mu mu bëgg a jaayante ngir bëgg a xam mooy da koy jaral lu ne. waaw kii ñëw retourné waat ne fekk li muy xam fekk fekk amul diplôme sàngam kon xam-xam boobu jarugul ko jarugul mu koy jàng. Hmm. loolu moom mooy suñu problème ñun. Euh, ma jël si euh, Allemagne boobu nga wax noonu Allemagne xëy na euh, si wàllu si wàllu jumtukaay yi nga xam ne dafa jëm si wàllu jant bi. Hmm. mooy solaire ba si France soo xoolee ñoom liñ si mën a liñ si daw bëri na si dëkk yoo xam ne dawaguñ ko. si hmm. wàllu xam-xam solaire. parce que ñoom dafa am beneen beneen beneen euh, beneen euh, panneau boo xam ne moom la ñuy utiliser panneau boobu moom la ñuy woowee panneau miroir. Hmm. bokkut ak comme panneau yi nga xam ne moom la ñuy utiliser panneau boobu. Euh, courant bi koy composé benn panneau rek mu nga ñëw mu ngay jël si presque ay quatre-vingt-seize volts mhm. te soo xoolee ñun suñu panneau yi nga xam ne day panneau euh, douze volts yi mi ngi dem si vingt et un volts. Mhm. panneau vingt quatre bi mooy trente six bi wala trente sept bi euh, vingt quatre bi mooy dem entre ay trente six trente sept trente huit volts. Mhm. parce que ñun ñaari panneau yooyu li ñu mooy panneau. 21 bi. Ah. ak 36 30 38 volts. Mhm. mais ñoom fekkee ne si ñoom la seen benn panneau rek day dem ba ay 96 volts. Mhm. kon ñoom am na beneen méthode bi ñuy bi ñuy liggéey si wàllu euh, solaire bu wuuteeg par rapport ak ñun li ñuy utiliser. moo tax ñoom jant bi li ñu si am lu mu tuuti tuuti day chargé seen i seen i seen i seen i appareil. Mhm. parce que euh, dafa bëri ay façon parce que xoolee euh, su ma la jëleelee matériel solaire lan la ak lan moo ko composé lu si njëkk bi mooy panneau solaire bi da si am solo mooy loolu nga gis mu am lu mel ne couleur bu euh, couleur bu bleu walla bu noir. Mhm. moom la ñuy wax black. Mhm. Ah, am na panneau black panneau yu bari ay façon ay ay tour yu bari la. waaw bu la euh, moom ci wolof moo ne baxa waaw bu fekkee euh, boobu nga xam ne dafa dafa ñuul waaw dafa ñuul waas boo dañ naan rek ah, baxa bu bu bu ah, bu dër waaw bu dër ok mm. léegi nag noonu la mel léegi nag panneau yooyu ma la wax noonu nag noonu lay fonctionner léegi nag soo ñëwee ba si panneau yi panneau bi su ñëwee ba ngay installé ko pare dañ la wax la ban côté la war a versé wo degré bi ñaata degré la mooy. la war a pant bi. waaw dañ ko war a wengal waaw li ko war a wengal. Mm. da nga koy xam Euh, diggante pano bi ak régulateur bi dañ la wax la ne nangami mètre fil bi. Mhm. ak diamètre fil bi nga xam ne moom ko war a composé. Mhm. da ko war di xam. soo ñëwee ba foofu nag moom dafay ñëw su jógee si panneau bi rek day ñëw si régulateur bi régulateur bi mooy wax panneau bi ne ko li nga am si courant nangam la waaye bëtë yi nga xam ne moom laa war a jël ngir di ko chargé. Mhm. bëtë yooyu ñu ngi ko simulé 24 de cela ñu ngi ko simulé 12 volts wala 24. wala ñu ngi ko simulé 48 volts. Mhm. li ñuy ñu ñuy utiliser parce que li si ëpp ay 48 wala 96 volts. Mhm. Mhm. léegi nag moom li nga xam ne moom moom moom lay panneau bi di wàcce moom su ñëwee ba si régulateur bi day wax ne bët bi nangam ji lay jël mooy 24 la. kon panneau bi dañ koy programme mu nekk vingt 24. léegi nag mu des ampérage bi ak puissance bi doole ji parce que ampérage bu lu am solo la mi ngi mel ne comme oto bi nga xam ne bala moo takk day raam di raam di raam di raam su tàkkee ba pare bala moo am xel bu bu bu gaaw. Hmm. day raam di raam di raam ba ba tàng dogo daw. Hmm. bokkut ak bi nga xam ne soo taalee su tàkkee rek soo accéléré rek day daw. Hmm. ampérage foofu la amee solo parce que loolu sooy def installation da nga koy programmer si panneau yi. nga xam ne li muy chargé da koy chargé ba nga xam ne batterie bi day am ampérage bu doy. ampérage boobu mooy téye courant bi nga xam ne moom nga utiliser guddi. Mhm. parce que parents yi su demee ba ay 5 heures si ngoon jàpp ay 5 heures et demi foofu dootu mën a panneau bi du mën a chargé ci normal parce que jant bi mu ngi dem. Mhm. léegi li li si des li tax ngay am courant guddi gi mooy pano bi lam chargé woon si bëccëg gi moom mooy dem si mooy dem si euh, batterie yi su ko defee batterie yi su panneau bi arrêté batterie yi moom mooy jël relais. continuer ba ba set mën a dox ci guddi ba ba dox ci guddi guddi gi ah, léegi nag boobaa day am onduleur boo xam ne day dox ci diggante bi mhm. onduleur boobu moo jëlee ci batterie bi ne léegi batterie bi quatre volts la mun a waaw mun a léegi kër gi mi ngi soxla 220 euh, volts mhm. kon onduleur bi moom dafay wax ne ginnaaw yéen bi ngeen jëlee ba pare ba ngeen dencal ma li nga xam ne moom laa soxla ba pare léegi man man maa koy maa koy multiplier da koy da koy ful hmm. ba yóbbu ko deux cent vingt volts hmm. mu dem ba trois cent quatre vingt ça dépend si hmm. onduleur bi ngay monté waaw léegi dañuy taxawoon di xam naa ci ci ci laaj boobu sax ngir wéyal ndax gis nañ ne euh, yow da ngay defar ay ay lampe wala potofort yi nga xam ne day maam leeral ay mbedd ak yooyu waaye di ko def maam ci solaire gis nañ tamit la ngay defar moom ay sikaare yoo xam ne nii waaw dafay am euh, maam daal euh, kii euh, yasara mm-hmm. waaw muy maam ay saak électrique mm-hmm. léegi bëggoon nañoo xam waaw loolu nga ñëw ñu ci nan nga def waaw loolu ba man koo waa defar ndax dañoo gis ne léeg-léeg ñu bari sax ñoo xam ni dañoo jaar ci école tubaab yi mm-hmm. jàng waaw ci ma aneer bii Euh, sax maam yenn yi duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko def. Mhm. waaw maam xëy na sax ñàkkuñu ko waaye gisuñu ñoom ñuy fent ay yëf yoo xam ni day jariñ nit ñi léegi léegi boo ñu doon ñëwal ci ni nga def ba defar mm, maanaam euh, lampadaire solaire ak tamit nga def ba defar saak boobu nga xam ne. Mhm. Euh, waaw lu am solo la ci ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy génn ci àll bi. Mhm. waaw te di soxla daal amam yasra Euh, lamp yi bi ma koy def si année bi dama koy fàtte année bi si jamono yi avant ñi euh, projet Macky Sall bi di di am si kii bi mooy lampadaire yu kii poto yu ñuul yi. Hmm. Euh, avant boobu sax fekkoon na ma doon gëstu si wàllu lampadaire lan lañ mën a fexe ba ñun ginnaaw jumtukaay yi amuñu hmm. yan jumtukaay lañ mën a ja boole fexe ba mën see am lampadaire. Hmm. Euh, jamono yooyu gëstoo naa si ba defaroon si benn euh, defaroon si lu toll ak ñaar ba ñetti pot lampe solaire. Mm-hmm. Euh, bi ma ko xoolee def étude bi xool xool li ko composé ma ne lii ñun jaruñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy jigaani mm-hmm. kon lii war nañ ko mën a defar suñ bopp. si laa ne naa profité jéem ma xool nu ma fexe ba defar pot lampe mm-hmm. solaire. Euh, yàlla si borom dimbali ma may gëstu ba xam matière yi ñuy mën a composé ba mën a defar pot lampe solaire. Mm-hmm. Euh, jafe-jafe yi ñu am mooy euh, panneau yi xam mun mënoo koo créer. Mm-hmm. kii photodiode yi mun mënoo koo créer fekkee ne si côté lampe yi mun mënoo koo créer batterie mënoo koo créer kon li ngay mën a defar mooy accessoire yi nga xam ne moom moo ko composé. Mm-hmm. nooy mën a fexe ba. dajale accessoire yi ba mën a am li nga soxla mooy composant bi. Mm-hmm. mi mel ne kon koo ko xam ne doon togg mënoo xeexee rek togg ceeb jën. Mm-hmm. wala nga togg fe wala nga leen kon il faut nga dem marché ndugg yi nga xam ne la ngay xam ne moo koy composé. marché marché mooy mooy ja waaw loolu la wolof di wax jaba. léegi nag loolu ngay jël dajale ko ngir nga mën a euh, xool lan ngay nga nga mën a produit ba mën a defar suñu borom dimbali ma. Euh, ma gëstu si ba defaroon làmp boo xam ne sax làmp bi leeraay bi ni mu leeree sax man da man ko doon defar sax dafa ma xawoon jaaxal. Hmm. Euh, ma defar ko wut tip defar lépp mën nag ma présenté ne làmp lampadaire yi mën nañ koo defaral suñu bopp. Hmm. man à chaque fois su ma gisee loo xam ne damay gis nit ki di ko wuti muy jafe si moom damay xool yan jumtukaay la ñuy war a mën a jël composé ko ba mën a am loolu te duñ indil yenn jafe-jafe. Mhm. si la créé lamp lampadaire yooyu mais si ginnaaw gi nag après si la état bi doog a am ñu ñu ñu signeel ak euh, euh, xaw ma France la xaw ma fan ba ñooñu euh, exposé ba defar lampadaire parce que ñoom lamp yi ñu defar moom c'est bon baax na parce que si xam-xam lañ ko teg mhm. waaw parce que soo xoolee ni ni nga ko tëralee par rapport ak yeneen lamp yi ni nga ko doon defaree dafay wute parce que lampadaire yi ñuy doon defar bu njëkk ba da ngay gis lamp boo xam ne day guddee lu toll ay set jàpp xaw a jege ay sate et demi wala huit mètres léegi batterie bi nekk ci suuf régulateur bi nekk fi léegi nag lu muy gën di yàgg làmp bi di am perte ampérage hmm. suy demee am su demee ba am ay cinq mois six mois poto lampe boobu dootul chargé hmm. parce que dina am voltage mais ampérage bu moo fi dul nekk moo tax su tàkkee de day xuyu mais bii système bi ni ñu ko defee moom euh, tegu na si yow si xam-xam la tegu moo tax bi ma gëstoo ba xam ne loolu mën a nekk si laa defaree lamp lampadaire euh, ñaareel bi nag mu ñëw si sac courant bi sac courant bi euh, dafa amoon si ay jamono yoo xam ne euh, dama doon dem si village yi doon installer ay solaire si dëkk village yu bëri ma demoon côté Kaffrine mm-hmm. benn dëkk bi ñu ba ñu wax Saweli mm-hmm. Saweli xaw ma daal dëkk boobu damay fàtte tur bi moo Kaffrine war na mat lu toll ay 15 kilomètres xaw ma 13 keroog ba mu fa demee ñu ma ñu santoon ma fa pour ma liggéeyal na leen installé leen benn kër mooy ki topp si imam bi mais li ma njëkk li li ma gën a métti man dama dama dama dafa ma jaaxal dama ne est-ce que lii Sénégal am na Sénégal parce que man xaw moon ne am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi dund si ñàkkum courant te pour ko am ko du dara mm-hmm. man mii su ma amoon matériel yi ñu am benn chaine chaine nii teg ma am temps bu tegi ñoom ñii seetaan diiru 15 jours laa lax de wala même pas 15 jours moom leen système bi ñuy fexe ba ba ku bëgg taal sa lampe taal ku bëgg a sa sa portable charger te yow yaa koy defaloo sa bopp. Hmm. man système boobu laa laa indi woon pour présenter ko pour xool ni ñu mën a fexe ba yaatal xam-xam bi ba nga xam ne ba ñëpp mën see jot. ba nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne waa àll bi ni ñu koy am ñu mën koo defal seen bopp. Hmm. position booba defuma si woon pour wut di gagné alal di gagné xaar déedéet parce que maa ngi sama liggéey maa ngi liggéey si wàllu informatique en temps maa ngi liggéey si yeneen liggéey yu bokkut ak wàllu informatique. Hmm. kon euh, jafe-jafe yooyu gis naa ko si àll bi. bi ma demee ba gis ko loolu ma gis sën boo xam ne da sën boo xam ne dafa dafa dafa dafa nekk dóom ma ne yéen lii lu mu doon damaa jàppoon na sax dañ fay doon ndaam ñoo xam ne dañu doon jël seen dóom di ko fa tuur te ma gis ko si si biir kër gi affaire bi jaaxal ma. Hmm. Euh, borom dëkk ba bu ma ko gee mu ne ma lii samay maam si lañ doon jànge ak samay bàyyi si lañ doon jànge mën na loolu nu mën a nekke ñu ne ma léegi guddi googu na ma fanaan fa gis lu mel noonu ñoo xam ne dañuy taal matt mu sërale tàkk ñu ñu wër matt mi wan ko ginnaaw di jàng ndongo daar noonu lañ doon jànge mais gis ñoo xam ne aussi dañuy taal gaz gaz bi su tàkkee su flambeau muy def noonu si la ñii dañu wan ginnaaw ñi ñi jàkkaloo flamme di di di di jàng ginnaaw yàlla sama diggante yàlla dëkk bu kii dëkk boobu presque man maa fa jëlee maa fa jële sën boobu. Hmm. dëkk bi réyul noonu. waaye bi mu ko defee ba pare defal naa ko imam bi ak ki topp si imam bi ak ñun ñëpp man maa lay installé ba léegi si système bi ma bi ma créé moom la moom moom moo fay dox kon jafe-jafe yooyu ma gisoon nag si laa ne kon léegi. xale yi nga xam ne dañuy jàng ecole ma gis si jafe-jafe yi xam dañ ko am kon ñii nan lañ mën a fexe ba seen saag yi nga xam ne moom lañu yore di jàng mën nañ soo fexe ba saak bu nekk xale bi néeg bi muy nekk mën na faa taal làmp di fa jàng leçon mm-hmm. ma defar saag boo xam ne parce que dina mën a taal deux làmp ba trois ba quatre làmp kon saak bi xale bi di yor mën na see utiliser di si taal di si jàng leçon ba ba ba ba jàng bi mat mu tëjaat saakam su ko neex aussi mën na chargé euh, téléphone boobu maa ngi ko def mille 2007. Hmm. laa laa defar euh, projet boobu. Hmm. si ginnaaw ko sax pour léegi jamono ji ñu sax pour nga defar ko dafa dafa yomb. bu njëkk ba matériel yi dafa jafe pour nga am pour nga mën koo def. Hmm. mais jamono yi moom pour defar ko comme gëmm la sax. mën nga gëm sax di ko defar loolu moom du du dara moo taxit bi ma defaree loolu si ginnaaw ko ñi nga xam ne xëy na sax euh, alal moo leen jiite ba tax ñu jël sa œuvre boobu. jël ko yóbbu ko Chine. Hmm. parce que saag bi dañu ko pirate. parce que man jamono yi ma koy defar jamono yi mën ngeen xool ci si si si si si si euh, internet bi amul benn année bu mu bu tombeel boo xam ne di nga fa gis saag bu mel noonu. si hmm. ginnaaw gi ba mu fa dugalee ab diir lañuy doog gis ñin ni di ko di di di di ko def ba chinois yi defar si ay saag mais la ma composé si biir ak la chinois bi defar bokkul. foofu mhm. lañu wute ok am na solo loolu xam naa foofu mënoon nañ cee yaatal bu baax a baax ndax man gis naa yeneen i maam jumtukaay yoo xam ni ñu waa defal nga ko muy lu am solo ci dunduk euh, waa nit ku ne kon dañuy jàll ci maam ñaareelu ñaareelu ñaareelu ñaareelu tomb bi mu jëm nag ci maam xam-xam euh, nosekaay nosekaay moom mooy rek maam ordinateur kon euh, li ñu wax euh, informatique. Mm-hmm. waaw loolu loolu rek moom mooy ah, xam-xamu noosekaay. Mm-hmm. léegi bëggoon nañ waa nga leeralal ñu waaw lan mooy euh, ma informatique. waaw informatique dafa nekk loo lu am solo parce que jamono yi nga xam ne ñun dañoo nekkoon jamono yi ay 1995 96. diggante yooyu 97 si la informatique euh, si lañ koy doo ko xam ñun. Mm-hmm. Euh, jamono yooyu am nañ ñu fi nekkoon ñoo xam ne euh, Seck njaay mi ngi fi Seck mi ngi fi woon Mabé Ndiaye ak Vema Demba ak keneen kii damay fàtte tur bi te nekkoon Mbàkke te dëkk Daaru Xuddoos ñoom ñoo fi nekkoon si ginnaaw gi sax Samsu Diin bi nekk ETS moom da doon def euh, moom si internet bi internet bi ñëwee si la doon def di def formation euh, ñi nga xam ne dañuy soxla ay Word Excel ak euh, nooy mën a fexe ba utiliser internet te jamono yi jàng internet daf dafay doon loo xam ne sax pour nga tijji paas sax da ngay dem ñu jàngal ko mm-hmm. <laughs> xam nga loolu lu lu doy waar la pour nga mën a tijji rek mën a mën a mën a bind. Mm-hmm. Ah. wala soit pour mën a dugg YouTube wala yooyu da ngay fay ñu jàngal la ni ni koy defee jamono yi moom moo loolu moo fi amoon. man nag bi ma gisee loolu bi ma njëkkee gis ordinateur dama ko xool rek man ni lii moom li may sob sob sob sob sob lii moom du ma xam man lu foofu laa man ma toog ba si àggam ne ginnaaw doomu moom moo ko defar lii waruma të foofu laa jóg gi mu jaral la ma lu nekk nag parce que jamono yi damaa ngi doon liggéey si wàllu tëggu wurus. bûcher laa doon def en 1980 80 86 87. si laa tàmbalee def euh, tëggu wurus. Euh, ba 2005 laa arrêté tëggu wurus mais si diggante boobu nag maa ngi doon defaale formation informatique. Hmm. information bi li ma xam lépp lépp si informatique formation bi weesul 3 mois. 3 hmm. mois laa jàng informatique trois mois. ci laa xam software hardware euh, bi loolu amee euh, jamono yi ay 95 97 soo xoolee Windows yi xam ne moo fa ñu moo jotoon dugg euh, man ay Windows 95 laa fekke woon 98 97 Millennium 2000 XP Pack 1 Pack 2 Pack 3 Euh, ba wàcc ba wàcc ba si seven eight Windows quatre-vingt euh, kii nute te euh, huit ba ba jël ba si ba si eight mm-hmm. yooyu yëpp Windows yooyu yëpp fekke woon naa parce que bi may def formation yooyu yëpp mémoriser naa ko 95 mm-hmm. bu njëkk ba ni ñu ko doon installé dafa wuuteeg sax parce que jamono yi fi ne ni am na ñoo xam ne sax ñu ngi si biir informatique soo la joxoon installation Windows 80 80 90 wala 95 duñ la ko installé la soo la joxoon ñoom aussi duñ ko mën a installé parce que système boobu fekkewuñu ko. parce que loolu bu njëkk ba pour nga utiliser il faut nga utiliser lecteur disquette. boobu le lecteur disquette moo doonoon lecteur démarage si nga doon démarrer machine bi te pour nga démarrer machine bi il faut nga maîtriser MS DOS parce que machine bi da ngay làkk ak moom nangam laa soxla la loo soxla nangam ban bunt nga soxla buntu bi laa soxla. bunt bi lan ak lan nga kii nga ne code sàngam nangam nangam nga validé waaw noonu nga doon def ba mën a installé Windows 95 wala 98. Mhm. système boobu moom moo fi amoon. Mhm. Euh, si ginnaaw nag bi ma demee ba ba ba gëstu si wàllu euh, informatique si laa na léegi hardware ginnaaw man sama wàllu sama wàllu gëstu si wàllu électronique la. Mhm. mooy si matière yi nga xam ne dafa composé si biir machine comme mii mel ne comme soo doon dem hôpital ñu ne. Euh, dama bëgg a def formation ni ñuy fexe ba di opérer. Hmm. mooy euh, si nit sax day xaw a compliqué waaye suñ ko jëlee si mala mooy si diggante xëtër xol butit res ak yeneen ak yeneen yoo xam ne moo composé euh, mala boobu ba nga xam ne mala bi di fonctionner. Hmm. ma ne naa gëstu côté boobu gose boobu lu ma si gëstu gëstu gëstu awma kenn ku ma si defal formation. amul kenn koo xam ne mën na taxaw na moo ma jàngal xat wóor lu ma xam lépp dama ko gësul sama bopp te ni ma ko gësoo si baatu wolof laa ko gësoo gësoo ma si baatu nasaraan mm-hmm. parce que li si bëri bëri si wolof laa ko gësoo li ma xam si baatu wolof laa ko xamee kon mbir mi nekkul si fekk amuma euh, egguma si niveau sàngam lii duma ko jàng loolu soo ko defee rek da ngay tayal mm-hmm. parce que li la gën a li gën a yéeme mooy Tuubaa soo fi duggee ñi nga xam ne ñooy liggéey si bërëbu euh, jumtukaay yooyu ñu si bari si daara ji lañu jóge ñëw tàbbi si jataay bi. Hmm. te yooyu yëpp benn bu nekk euh, li la koy may mooy nga gëm sa bopp xam ne ni lii soo xoolee làkk làkk làkk lan la baatu làkk man ni ma ko jàppee mooy loo xam ne jumtukaay la boo xam ne ki nga ki nga bokkul ak moom waxin. nga fexe ba jàng si moom moom soo waxee nu mu lay tontoo loolu mooy baatu nasaraan muy anglais français espagnol ak yeneen ak yeneen jumtukaay communication la mooy jàllale sa wax mm-hmm. soo ko jàllale ki nga koy jàllale mu mën a dégg li ngay wax lan la léegi nag dafa wuuteeg xam-xam mm-hmm. xam nga il faut ñu xoolaat il faut ñu toogaat ñun xoolaat suñu xel xool lan la loolu sax moom baatu xam-xam. loolu sax ak làkk bokkul. loolu moo waral. waaw waa jataay bii mhm. waa ñu koy def ngir wane ne euh, moom xam-xam ak làkk waa yaar la yu yu. yu bokkul. waaw ma yu bokkul ndax. Mhm. ma ne ne eh, yow xëy na maam ci njàngum tubaab man nga cee bañ a sori. Mhm. te tey jii yaa ngi ci def yoo xam nii wala di fent yoo xam nii. ña nga xam ne tey jii dañu leen wooyee eh, maanaam moom ay ingénieur wala sax. waaye ah, ñoom lool. Mm-hmm. kon loolu day wane rek xam-xam moog làkk yi bokkuñu làkk yi moom ndab la rek. Mm-hmm. ndab li nag yow yaay xool waaw ni ci yàkkee xam-xam bi. waaw moo tax euh, mm-hmm. moom lii. am na solo léegi kon day ñëw rek maam ci njariñ yi euh, maam informatique. bu ko defee euh, waaw buñ noppee. tamit ñëw ci yenn yi nga xam ne yow waaw ci ci ah ci fànn gi jot nga koo jot nga koo fent. Mm-hmm. waaw soo ñëwee ba si use yi euh, xam naa damaa daggoon wax ji moo taxoon moo kii euh, une centrale UC yi mooy unité centrale unité centrale mooy kees goo xam ne dafa taxaw ab moteur nekk si biir moteur boobu li ko composé mooy carte mère alimentation barrette mémoire processeur mm-hmm. euh, processeur socket processeur intégré ak yeneen euh, circuit yi nga xam ne moo ko composé mooy ay condensateur capa euh, euh, ak circuit EPROM yi. Mm-hmm. yi nga xam ne moom mooy tax pour nga mën a utiliser. ak yooyu yëpp benn bu nekk ak ligne yi nga xam ne moo ko composé mooy yoon yi nga xam ne fa lay jaar si biir carte bi. Mm-hmm. parce que carte soo xoolee ay yoon la. Mm-hmm. ay yoon loo xam ne soo jëmoon si yoon sàngam ñett wala ñeenti fii la fay ñëw dem. su demee dafay am comme garde comme ni ngay amee gardien di taxaw parce que soo ñëwee ba si bunt bunt boobu dafa am lu koy tëj lu fa am lu fay taxaw mooy site ki yi nga xam ne moo ñëw na la léegi kër gi de nangam ji moo fi dugg si voltage mooy 1 virgule 2 wala 3 volt wala 5 volt walla 12 wala 11 virgule wala sans dépense si voltage yi nga xam ne moo fay dugg Mm-hmm. noonu la carte mère noonu lañ ko noonu la noonu la bindoo. Mm-hmm. dafa dafa doon loo xam ne lu mel ne comme ab dëkk la boo xam ne euh, dëkk ba li muy li muy yaatu yaatu yaatu kenn ku ne am nga ab yoon boo xam ne fa ngay jaar. Mm-hmm. loolu moom la ñu woowee carte mère. mel ne nga mooy biir. comme ni ma ko mën a tënkale mooy biir doomu aadama. mooy carte mère léegi soo ñëwee si écran bi écran bi. écran bi soo doon xool ni ma ko mën a tënkile mooy li tàmbali si baat bi jëm si kaw bopp bi ba si karaw gi loolu moom mooy la ko composé am na yeneen fànn yoo xam ne sax génn na fa muy mel ne ko nga ne nopp euh, gémmiñ bët yooyu yëpp benn bu ne génn na si euh, yooyu moo ko composé si kaw ecran bi parce que soo xoolee doomu aadama xaw ma côté bi la xaw ma côté bi am na si ay ay ay siddit yoo xam ne dafay ñëw moom mooy mooy mooy fonctionner cerveau euh, bi. parce que dafa jógee si si biir yaram bi ñëw dem si cerveau bi lenn lu nekk li muy fonctionner mu ne loolu la écran mel encore. Mhm. écran bi soo ko jëlee am na ay fil yu bëri yoo xam ne dafay jóge si biir carte mère bi jëm si écran bi mooy waral li ngay soxla muy affiché direct si écran bi. Mhm. kon soo xoolee dafay mel ni nit lañ jël tënk ko. Mhm. liggéey si ab machine. dañoo jël ñi tas ko xool organe bu nekk li muy fonctionner ñu jël organe boobu composé ko ak benn cirque cirque boobu nga xam ne comme ñi mel ne nga ne léegi xëtër ni muy doxee am na cirque boo xam ne noonu lay fonctionner nga ne xol nga ne processeur noonu lay fonctionner processeur intégré mooy processeur boo xam ne dafa sax si biir carte mère mooy comme ñi mel ne nga ne xëtër parce que mën nga soppi xol mais mënoo sopp xëtër est-ce que est baax li wax hmm. nga jël siddit siddit mooy ligne yi nga xam ne dafa jaar si biir carte mère. Hmm. ay yoon la yoon la yoo xam ne nga jël si baret baret mémoire aussi tamit noonu noonu lay fonctionner jëm si côté ay deret ak yeneen ak yeneen noonu lañ jël composé ko liggéey si jumtukaay yu mel nii. Hmm. kon euh, ñoom bi ñu si liggéey si ay UC mooy unité centrale euh, pencum 1 pencum de pencum 3 pencum 4. bu ñu jógee si ay pencam 4 après si la ñu doog a dem si ay corps i 2 corps i 3 corps i 4 ba corps i 7. léegi ñu jóge na si ñu ngi si yeneen secteurs yu bokkut ak yooyu. waa m ak M2 yooyu yëpp aussi am na. léegi yooyu yëpp soo xoolee kon adduna bi mi ngi avancé bu baax mais ñun lan lan lañ war a jëriñ askan bi ñun. Hmm. wax ma ñun sénégalais mais ñun africains yi lan. ban taxawaay la war a mën a taxaw ngir mën a euh, jëriñ suñu suñu continent. Mhm. mooy fi ñu fi nekk. ole léegi ñoom ñi ñuy jëm di jiggaani si yeneen continent nan lañ mën a fexe ba ñun ñu mën a taxaw ngir mën a jëriñu suñu continent loolu lañu ñu koy mën a may mooy ñu gëm suñu bopp. Mhm. parce que nit ki fekk gëmoo bopp sa bopp sa xamam xam wérul. parce que xam li koy wéral mooy nga gëm nañ lii yàlla suñu borom moo koy maye fépp waaye na ma koy maye mën na ma koo may. kon lu ko lu koy manqué mooy pas seef mooy ji mu jaral la ko. parce que nit ki fekkee ne da ngay su da ngay xëy ne da ngaa soxla ab dépense nga tëdd sa kaw lal ba ngoon est-ce que dépense la fa fekk <laughs> il faut nga sabablu génn ngir wuti ji. Hmm. ngir wuti ji ndaxte suñu borom moo bindee doomu aadama ngay tës tës si ba li nga war a am nga am ko noonu la xam-xam mel xam-xam mënu kenn mënu la nattal xam-xam si bërëb sàngam la nekk si doomu aadama. Mhm. soo wëral si cër yëpp mën nga wër bopp beeg fépp mais mënoo xam fan la nekk. waaw ndaxte xam-xam. Hmm. moom euh, dafay euh, leerug yàlla. Euh, loolu moo tax léegi nag loolu ñu bëri dañ ci dañ ci dañ ciy juum. Hmm. jàpp xam-xam moom. gën nga am ko faaw nga doonu chinois waaw hmm. mbaa nga doon anglais mbaa nga doon français hmm. te ñaar yooyu jotewuñu dara léeg-léeg nag euh, maanaam ni nga ko waxee léegi ñàkk gee gëm sa bopp hmm. waa li wala di wax yaras loolu dafa bëri rawatina nag mii gën a bëree ci ñi nga xam ne sax dañoo dem euh, waa ci a jàngu tubaab bi jàng fa ñoom jàpp nañ ne maam lépp lu jógewut ci tubaab rek mbaa boog ñu bari ci ñoom rek loola loolu mënuwut mm-hmm. waaye nun dañuy ñaan fii ji Touba waaw ñu am ki nga xam ne moo ñu njëkk a defal nosukaay goo xam ne nii nit ñi dañ ko jëfandikoo ordinateur boo xam nii nga mm-hmm. xam fii lay juddoo Touba lay juddoo mm-hmm. nga xam ne kon nga xam ñëpp dañ ko mën a jëfandikoo am mbokki taalibe waaye tamit mu law ci réew mi ndax nii nga jël su dëkkut yaakaar naa ne eh, loolu mën naa ne eh, na léeg-léeg lii li ñàkk rek mooy maam ak jàppale mhm. ak yenn yi nga xam ne dafay laaj euh, ay koppar ak yooyu mhm. waaye gëm nañ ne maanaam xam-xam beeg mhm. ak tamit maam yitte ji mi ngi fi te it noo ngi am yaakaar balaa maam yàgg dara euh, li ngeen am ci ay mébét yëpp rek yooyu maam yàlla sottoo ko léegi kon dañuy ñëw ci fi ñu jeexalee muy gis naa ne da ngay defar ay serveur serveur nag moom xam naa damay wax serveur rek ndax ma xamaguma nu ma ko mën a waxee ci wolof mbaa boobu nunu ko mën a waxee ci wolof mhm. waaw léegi serveur moom ndax maam defar ko maam jafe na ak serveur lan lay lan lay jariñ xam nga euh, serveur moom dafa nekk loo xam ne euh, xëy na baat bi dafa rëy hmm. baat bi mooy nu ma la koy mën a tënk mooy barab la boo xam ne dañ fay denc si biir denc boobu aussi tamit dañuy fexe ba suñuy daj di séddale hmm. di dajalewaat di indi euh, nu ma ko mën a tënkee si baat boobu rek mooy euh, man bi ma njëkkee gis euh, ñu ne ma lii mooy cerveau ma xool parce que si informatique laay liggéey composant yi xam na dafa nekk si biir carte mère ak yi disque dur yeeg barre mémoire yeeg yooyu hmm. yëpp xam naa benn bu nag ni muy fonctionner Euh, ma tas disque dur xool composant yi xam ne moo fi nekk mooy lecteur bi moo fa nekk ak CD bi mooy tourne disque yi njëkk yi ngay doon gis yu mag yi. Hmm. élex yi mooy yi nga xam ne su dawee noonu da ngay teg nii muy liir. Hmm. di wax noonu la disque dur mel si biir. parce que dafa am ay ay lente yoo xam ne moom mooy moom mooy mooy mooy mooy mooy kii su ko defee sedd bi sedd bi day daw suy daw lentine boobu moo koy liir. moo tax programme boo fa dugal même soo formaté disque dur bi su ma jotaatee euh, disque dur bi mën naa récupérer waa documents yi moo tax disque dur à chaque fois saa yoree machine ba machine bi euh, neexutu la te nekkoon ay données yoo xam ne mënutoon ñàkk li su gënoon mooy nga dindi disque dur bi soit nga utiliser ko wala nga dëbb ko wala nga gas suuf bi. Mm-hmm. ni mu dalee noonu noonu lay dalee si portable téléphone encore téléphone kenn waru ko dugal. téléphone soo demee ba neexutu la joxal ku la jege soo ko mënul nga denc soo su fekkee leen leen mënu ko denc nga nga suul. Mhm. mais warta warta léegi nag soo xoolee cerveau fonctionnement yi nga xam ne moom lay doxee mooy li ko composé xam nga baat bi dafa rëy mooy loo xam ne daf fi ñuy dajale. Mhm. fi ñuy dajale euh, soo ko doon natt rek soo ko doon firi si baat rek dafay yomb pour nga xam lan mooy cerveau jaru ngay def ay ay théorie wala soit ngay def na noonu jaru ko mhm. benn lenn rek moo ko composé mooy diggante UC ñett la mooy UC bi ñaareel bi mooy ki nga xam ne mooy def programme mooy kii def programme bi mhm. ak beneen bi mooy fan koy denc mooy disque dur ñett yi moo ëmb serveur mhm. nooy fexe ba serveur bi ki nekk ba Dakar wala mu nekk France mën ko jot kooku foofu mu jaar si internet bi parce que internet bu boobaa moo ko mooy jógee mooy jëlee direct di ko jël di ko fi nga soxla nga koy nga koy koy jot même ba soo soo yore sa portable téléphone mën nga dem direct si serveur bi mais serveur noonu la bindoo mhm. mooy diggante UC bi disque bi ak ak ki nga xam ne moo yore programme bi léegi boo koy defar maanaam boobu boobu programme foo koy foo koy foo koy jëlee. programme cinq mi ñuy dépendre si li ngay li ngay utiliser xam nga soo xoolee cerveau fonctionnement bi yow mi ngi ne mi mel ne comme man benn man ab commerçant la di jaay. Hmm. léegi li may def mooy samay données naa koy denc si cerveau bi. Hmm. kii ñëw ne Senelec la moom am na lu toll ak fukki fukki bërëb yoo xam ne. dafay jële xaalis di fa di di dafay day day jot xaalis di joxe xaalis di denc xaalis. Hmm. kooku dafa am programme boo xam ne spécial moo koy gérer. Hmm. nga jëlaat si beneen fànn aussi tamit noonu lay fonctionner léegi yooyu yëpp soo ko dajalee ba pare soo ko dajalee ñoom ni ñuy ma mooy kenn ku nekk jumtukaay bi nga xam ne moom ngay utiliser loolu ni ñu ngi koy ni ngi koy nas si programme bi nga xam ne moom ngay utiliser. programme boobu moom mooy xool wet gu nekk la mu war a denc. Mhm. si barab bi nga xam ne fa fa nga fa war a denc nga xam ne soo fa dencee saa yoo soxlaa soo laajee disque dur bi rek automatiquement programme bi euh, automatiquement day dem jël si disque bi génn jox la. Mhm. su paree mu jël denc. Mhm. su ma amoon temps dëgg-dëgg sax damay koy détaillé. taski bi xam naa ne yooyu day am yoo xam ne dafa am ñu koy jëriñoo. ñoo xam ne si la ñuy si la ñuy gañee seen i xa kii. Mm-hmm. mais defar ko du dara daal maa ngi jéglu si ñi nga xam ne seen xam màcc na si fànn boobu waaye defar bi jafewul pour defar ko. Mm-hmm. léegi si ñett yi rek laa la laa la tënkal dama la juñee rek nee na ñett yi soo ko amee. Mm-hmm. pour nga defar serveur lu yomb la. Euh, waaw kon xam naa dañuy waaw bu fekkee ne am na loo bëggoon a leeral. waaw c'est que man li may li may euh, c'est que sama man damaa jël sama xëy na bi ma juddoog léegi yàggul sax parce que xam naa yàggul waaye nag euh, sama ndaw yëpp dama ko gëstu. Mhm. man sama lépp nan laay def def ba euh, su ma gisee loo xam ne ñi da koy def man lu may mën a fexe ba loolu ma am si xam-xam lu mu néew néew ma am si dara. Mhm. man toujours si fànn même ba si arrosé en distance nga xam ne mën nga am sa tool nga nekk bërëb sàngam tool boobu mën nañ ko installé ba nga xam ne defar matt beeg lépp nga xam ne au léeg ngay dem di wuti ji la koy arrosé du ko jar mën ngay toog fii di arrosé say tool en distance te yooyu yëpp yooyu du dara. Mhm. yooyu yëpp même ba si ay kii caméra yooyu yëpp maa maa ngi koy utiliser alarme sécurité aussi tamit soo xoolee gardien yi léegi dañuy fekk si fi ñuy gardien ñu fekk leen di leen cor di leen gaañ léegi am na système boo xam ne defar naa ko boo xam ne léegi jarutul sax ngay jël ay gardien di ko teg si sa buntu kër. Mhm. léegi yow mën ngay nekk mën nañ koo installé ba nga xam ne borom kër gi su ko neexee mën nay mën nay installé fii ba pare euh, studio bu nekk Dakar wala mu nekk Kaolack nga xam ne day mel ne yaa ngi si biir kër gi. Mhm. di utiliser caméra yi te fekk na fi nga nekk sori mhm. yooyu yëpp aussi tamit dama koy dama koy def ak euh, si wàllu ki jëm si côté ployé yi. Mm-hmm. yooyu fànn xam naa ni dafa yaatu daal <laughs> maa ngi si man daal maa ngi si lépp daal. <laughs> waaye kon mm-hmm. euh, jërëjëf sëñ El Hadj. amoon nañ mbégte loolu ànd ak yow. Mm-hmm. ngir ma wanewaat euh, ci beneen yoon ne euh, am xam-xam aku làkk bokkuñu. bu defee wolof day làkku làkku xam-xam woo xam ne nii. maanaam lépp loo xam ne xam-xam la ci àdduna. Mm. a mën ko cee yàq mm-hmm. waaw mën nañ cee defar moom lépp loo xalaat rek mm-hmm. ci loo xam nii day day ah, day jëriñ nit ñi mm-hmm. te yow loolu waa yaakaar naa maam maan firnde nga ci euh, kon noo ngi lay sant euh, bu baax a baax euh, waa xanaa nga tàggatoo rek waaye di sant di gërëm bu baax di am mbégte bu baax si jataay wax dëgg yàlla ñun moom dañoo néew xam lool <laughs> ñun moom dañoo doon ñoo xam ne ay ay dong leen si biir dëkk bi lañ nekk muy Touba hmm. euh, nekk si biir Sénégal euh, mu nekk loo xam ne dañoo dafa nekk mbégte si ñun hmm. bañ bokkee si doomi dëkk bi euh, man de dama wax ne lépp lu may wut lu nekk su ma sañoon duma génn senegal gi hmm. di ko jigaane di ko wuti ji feneen di wax ndaw ñi tamit buñ tayal nañ gësu te xam-xam ñaar rek ñaar ñaar ñaar yoo xam ne tànk nit ki mi ngi si saa yu saa yu sàkkoo xam-xam yàlla si borom mën na koo dimbale ba li mu war a xam-xam ko. Hmm. mooy ku la gën a eh, wéet moo la ëpp xam-xam ku la gën a maandu moo la ëpp xam-xam ñaar yooyu rek su ko ndaw ñi féetewoo rek lu si bëri bëri bari bari bëri loo xam ne daf leen lëntoon seen xel yàlla mun na dogal ñu jot mooy ku la gën a Euh, wéet moo la xam-xam gën maan moo la xam-xam mhm. parce que su ma indee ñaari baat yooyu du du du caage ne baatu wéet képp la parce que wéet mën nga ko firi lu ne aussi tamit mën ko firi lu ne parce que moo tax ndaw ñi aussi tamit euh, nañ profité seen ndaw ñu jéem see sàkku xam-xam ngir ëllëg ñu mën see jëriñ ñi ñi nga xam ne ñooy ñëw mooy seen i doom yi wala seeni i sët yi ak yeneen parce que xam-xam boo fi gis bu nekk ki xam su xamee tuuti su fi jógee keneen day ñëw jëlaat. kon euh, dafa nekk loo xam ne mooy doxal am réew te lépp luy doxal am réew ndi euh, euh, ndawu dëkk yi aussi war nañ see taxaw bu baax a baax di am mbégte bu baax di ñaan si kàttun yàlla lépp lu ñu si wax lu nekk yàlla nekk njëriñu askan bi mm-hmm. lépp lu si dëng rek ñuy ñaan si borom mu jéggal ñu ko Euh, di leen euh, sant bu baax di am mbégte bu baax si jataay bi di ñaan si kàttanu yàlla yàlla na si borom defal ñu jàmm jërëjëf jërëjëf. ok jërëjëf suñu El Hadj nooy lay sant kon ci teewaay bi bokk yi kon mel ne waxtu wi xocc na euh, moom dañuy yamale fii jataay bi di leen wax rek ne ah, amoon wolofa ngoo kon nan fexe doxal réew mi fexe. Euh, maam jëmale réew mi kanam ci suñu làkki réew yi ndax suñu bëggee dem loolu rek am moon mën a yóbbu kon ñuy santaat bu baax di sant euh, suñu suñu technicien Sëñ Mbàkke Mbegere ci taxawaay bu rafet bi waaye jërë ngeen jëf groupe Asna Khadim di kër gu yëngu ci mbindum al alquraanul karim ak xasida ci mbindum rafet te wow ak mool yu taaru moo leen di jaajëfal ci safoo gi ngeen ko safoo si wàllu liggéeyam groupe Asna Khadim indil na leen mbokk yi lépp luy tax seen wàccaay gën a yëwan